na la الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب الذين آمنوا وعملوا الصالحات الصالحات طوبى لهم وحسن njariñ loo xam ne dafa ñëw ginnaaw ab coona mooy li xewoon démb lu ko waral dafa mel ni coono bu rëy coono bu diis coono bu yéeme moo ko xewaloon ba tax na ki tax ñu daje fi woon démb mën cee déggee ndax sunu boroom dafa xëy xëy rek defal ko lim ko defal wala dafa jaar ci coono ak natt yu rëy rëy kon nag dañu bëgg a jàngat ci lu gàtt coono bi ak li ko ci suñ borom defal ak suñ borom bi mu ko ci defalee ba noppi lan la wax ñu defal ko ko ci mooy cant gi amoon démb nga xam ni da ngay xool ci yow mi ñuy waxal nga dégg bu baax xam ni sëriñ bi coono bu tar la njëkke bi mu jógee ci coono bu tara tar doog a am li ñuy wax may yu rëy rëy may yooyu nag moo taxoon bésub démb bi am kon loolu moo taxoon ñu ni nañ waxtaan ci xam ni nit ku mën di doon ci àddina war ngaa jàngat xool xam ni bala ngaa am njariñ wala lu mu mën di doon coono da koy jiitu moo tax sëriñ tubaa xaadimu rasul jeexaloon dundam gépp fi taatillaahi wa xidmati rasulihi wa rafxi kalimati alxaq wa iqaamati aladalati wa tawxidi sufuufi almuslimin wa muhaarabati albidaa walxuraafaat dundam gépp moom sëñ tubaa ci lii la ko jeexal bu ñu la laajee kan mooy sëñ tubaa daal ci gàttal tënkam bépp bépp dundam gépp ci lii la ko jeexal ñu arrière ci tuuti balaa nattu bee ñëw nga xam ni coono la doon jànkoonteel mooy nekkoon koo xam ni ab yarekat la nekkoon koo xam ni ab jàngalekat la jël coono yooyu gàddoo ko daj ci loo xam ni dafay mel ni sax ci biir waxtaan wi di ngeen xam li ko liy sababu saahir ci ñu yóbboon ko ci géej gi mooy bi mu defee noonu doon ab jàngalekat di ab yarekat woote dajeeg mag ñu mar sunu boroom mag ñoo xam ni ñu yittewoo yàlla lañ dëmmal si ko ut si ko ñépp fu ne waaye di falax falax jëm si ci moom bi mu ñëwee ci la tubaab yi gis ni kat kii li muy indi ci dëkk bii di Sénégal wala ci réew mii di Sénégal miinee ko te bu ñu ko bàyyee mu dem ñun dana ñàkk baat boobu dana dootuñu am baat bi ñu amoon ci ñoom moo tax ñu daldi nag tàmbuli ñenn ñi di ko booleeg tubaab yi ndax li ñu miinoon ak li mu gis te mooy bëgg a yar nit ñi ci boole xam yàlla sunu boroom ak am xam-xam ba noppi am li ñuy wax ximm yitte yitte jooju nag mu daggoon dundam gépp jeexal ko ci ci la tubaab yi nag jóge mu ñu jàpp ni day def li ñuy wax résistance maanaam dafa nekk koo xam ne dafa bëgg woote jihaad ñu tàmbali nag di ko tuumaal waaye mu nekk nag boroom fit nekk boroom jomm nekk koo xam ni liggéey bii mu teg ci mbaggam te yanu ko fas na yéene eggale ko na ko suñu borom bëgge moo tax ba nu ko nee dangay ngay jihaat daf ni man de waaw damay jihaat waaye ci lan lay jihaat ku war a jàmmaar la ku yor kënu yor ay fital yori ràbba jaasi am doole lool nga ni leen nangu naa ni li ngeen ma wax day nangu naa ko nangu naa ni damay jihaat waaye ci lan lay jihaate inni ujaahidu bil ulumi man Sëñ Tuubaa day ci xam-xam ak ragal yàlla laa fas yéene jàmmaarloo ak yéen looloo waraloon kon bisub démb bii ma waraloon ñu woo ko ca ñépp xam ko wooteem bu siiw boobu ñu woo ko le 5 septembre 1895 ca bureau ba ca Ndar waaye xoolal suñ Tuubaa ba fa yeggee ak fitu ku ñuy tuumaal ku ñuy fexeel ki la woo war laa sànq war a jëflanteeg yow waaye nga ñëw xamal ko ni ko man benn buur rek laa am te mooy yàlla sunu borom ba mu ñëwee ci la jàmmaarloo foofa ca bureau ba fa la njëkk taxaw julli fa ñaari rakkam yooyu ngeen di dégg te mu siiw lool waaye mbokk yi ku ñu woowoon war laa tëj yaakaar naa boo demee ca bureau ko lay tëj da nga tara lijjanti laa misoo ngir ñu bàyyi la waaye moom ba mu yeggee dafa daal di xam ni benn buur rekk mat a jaamu te mooy yàlla suñu borom moo tax ñoom ñëpp ñu daal di waxtaan ci tënk rek ndax lu tukki bi dafa am solo yàgg bari bari natt waaye dañoo bëgg indi rek ci tukki bi ba bu ñu la waxee ni la sëñ tubaa lii la ci amee nga xam ni ku sonn ngi nii bu ñu la waxee sëñ tubaa lii la ko suñ borom fayee nga xam ni pay gi dëppoo naa ci coonaam maanaam amewu ko ci rek bëgg gu ko suñ borom bëgg defal ko ko waaye da ko def jaarale foo xam ni kuñ fa jaarale ku dul moom macha allah dara dul dara dara du la jot moo tax waykat ba naan ko ña xam yàlla ak ña xam yonent ca baawoon ba tey kenn jaaragul fam jaar boroomam kooku mooy sëñ bi nu ko woyee mu jàkkaarloog ñoom ñu tënk ci ñoom ci seeni waxtaan ci lu gàtt xam nga ni dañ koy rey wala ñu génne ko mbaa ñu tëj ko ñu ëpp ca ñoom daal di lënk ni kat gi mooy lu am ndax buñ ko bàyyee fii liñ bëgg ci moom du am kon nañ ko yóbbu ci dëkk boobu ñépp xam te mu siiw te mooy Gabon looloo tax moom mu wax ni wa adxala al ilah fi xulubi man tasababu fi naqlihi dhaka zaman ixraajuhu ila albilaadi naahiya wa naala fiiha fawqa sami sariya ñoom day dëppoon nañ ci ni dañ may génne yóbbu ma ca dëkk ya gën a sori waaye suñ xamoon génne gi ñu may génne day suñ boroom lam ma fay defal duñ ma génne danañ ma fa defal lu gën a kawe déggu sariya booba it ñu xam ni ndekete yoote kii ñuy pexeel mi ngi ànd ak sunu boroom te wayam wa yamkuruuna wa yamkurullah wallaaw xayrul maakirin booba yëgu ñi ñu ngi koy pexeel waaye kii ñuy fexeel sunu boroom moo leen ëppi fexe te dana ko muccal ci loolu ci mbokk yi ñu bàyyi xel ki woote mooy sëñ Tuubaa nanuy jël rek di xalam di xalaat xel du jar lu dul xalaat xel du jar lu dul natt sa bopp xool sa digg ak sëriñ bi xool lan la la defal maanaam lan la taxaw laata ngay jël sax sa bopp di ko jébbal lan la sowee li nga xam ne mooy lislaam ba nga man kee jariñu xoolal bi ñu koy woo mu war a wujj ñu woo ko ndar di ko yóbbu ndakaaru keroog bi muy dem dafa waroon mbokk yi ñu xëy tàqale kook ñu gënoon a bëgg tàqale kooku dëkkam tàqale kooku njabootam tàqale kooki taalibeem tàqale kookum réewam tàqale kooki soppeem ndax lan ngir baatu yàlla rek jëm ca kaw ndax lan ngir sowe xeetu yonente bi alayhi salaatu wasalaam ndax lan ngir fexe ba ñépp mucc mbokk yi ku la defal loolu ku la taxawu loolu ana lan mooy sag fay ci ci moom danañ ci ñëw ci kanam ñu woo ko ci koor bu metti mu yegg ndar waaye tubaab yi ak seeni pexe liñ ko def rek te mu gën a yéeme te sëriñ bi di ko fàttalil boppam te nga xam ne daf koo yéem lool ba mu di ko fàttalil boppam nga xam ni moom moo koy dem di ko nettalil boppam mu jaral ko lu ne mbokk yi xoolal sëñ Touba xoolal ku toll ni sëriñ Touba ñu jàpp ko génne ko dugal ko ci néeg boo xam ni wax nañ ni keroog ci Ndakaaru ba mu demee bay waaja a dog ca kooram gi ñu nu kaay wuyu tubaab bi mu ñëw ñu dugal ko ci néeg boo xam ni la fa nekk mooy ràbb paak jaasi def ko ba mu xeeñ xunn lëndëm kër yi yiis ñu bamax ko dugal ko ci biir mbokk yi moom képp amul fenn fu mu mën a teg tànkam bi fu mu ko teg rek ràbbu la ràbb yi dugg ci tànk bay sar ci biti mbokk yi moo ca nekk waaye xet gaa gën a bonati ñu ba wax ko ci biir nangu kaala ga xoolal loolu mbokk yi ndax la ndax lislaam mu dem ba buñ ko waxal boppam bay wax ni su ma demee ba fàttaliku fanaan moom ma fanaanoon ci néeg ba damay bëgg a jël xeet kon xam ngeen dañ na fa lu ne ngir xeex ak tubaab bi nee na su ko fàttalikoo ida zakartu zalika al mabita wa zalika al wa tasbita taarat ila al jihaadi bil armaahi nafsi walakin saba anil maahi na yonente bi alayhi salaatu ma fay fekk di ma defal xoolal mbokk yi kooku ko lislaam jaral kooku yelloo na tey kuy ñuul yelloo na tey kuy nit ku ñuul sax waaye képp koo xam ne lislaam ñor la nga bokk ci yonente bi am nga njukkal lu rëy ameel nga ko njukkal lu ndax bis bii nga xam ni dafa taxawoon yanu lislaam jànkonte ci ak jëf yoo xam ni kenn kuñ mës a dégg ci nit ku ñu xam ndax rek jàngatal yow mi nga xam ne dangay xëy di tukki rek war a bàyyi sa njaboot li ngay dox sa yittey bopp la xoolal ni tukki méttee moom ñu war koo génne ci réewam moo xam ni bàyyi léppam bàyyi dëkkam bàyyi ñooñam bàyyi ñëppam amul kenn ku ko mën a wéttali amul ku mën a àndal amul ku ko mën a ŋàbbal ak sigaat amul ku ko mën a doxal ndox mu mën a jàppe amul dara dara dara dara moom rek moom kopp ci noonu yoo xam ni saa bu ñu xëyee li ñuy fexe mooy ñu jële ko fi mooy fexe ba bakkanam jiitu saa bu ñu xëyee rek bu ñu dajee rek amuñu menn pexe lu may jële ko fi mu ne xusóori ya xalat wal ahlu anni tafarraxat li matxi lazi anhu xasi li matxi lazi anhul madixu xasi maa ngi dem ñu tàqale maag sama ñoñ tàqale maag samay dëkk tàqale ma ak sama lépp ngir lan ngir tagg ki nga xam ne liggéeyal ki nga xam ni mbubb moo ko solo rek ci tagg mu gàtt xoolal kook mbokk yi nga xam ni ndakaaru googee mucc gëm fa mucc ak la ko fa fekk yépp bam di ko waxal boppam nafa li xayrillaahu fi ndakaaru kulla asan lii jarrahul makaab kon nag sëriñ bi ngeen xam ni bisub démb bii coona la ko defee bisu dem bii ñun ñu yor bànneexoo ci ànd ci xéewal yu baree baree bari jullit bu ne murit bu ne war naa fàttaliku bu ñu nee suba la yor yor nga fàttali keroog ba muy ko war a dem bàyyi ñépp gisu kenn ñu yóbbu ko Gabon at yu bari ci nuñ ko waxee nga xool rek at yu bari yow nga war a nekk nit kuy xalaat ku ko doon toggal ku ko doon mayum ndox ku ko doon dimbali ku ko doon dimbali ku ko doon dimbali ku dul suñu borom ku suñ borom rafiqi kitaabullahi wal mustafa nabi yonante bi rek ak alquranul karim ñoom la àndaloon ñoom kott la àndaloon kenn wettaliwu ko woon ci dëkk bu sori nga xam ni gabon ña fay dem jamono yii boo fa yeggee danga gis ni sax mbedd moo mën a jaar sax ba dem fañ ko yóbbu woon amul nga xalaat téeméeri at ak nangam bañ ko fa yóbbu ci lëndamaay ci jafe-jafe ci metti nga war xalaat loolu lépp kon mbokk yi kon ngeen xam ne kii di sëñ Touba daj na coono boo xam ne ni ma ko waxee laata njariñ lii ñëw kenn du ko daj xoolal rek yow mi nga xam ni bu xiinee rek macha allah am nga foo war a daw dugg xoolal sëñ Tuubaa juróomi at ci Gabon fu mu doon làqu te ndox ma gën faa bari taw ba yooya bari fa lu ne bari fa war ngaa xalaat loolu war nga koo xalaat tukki bi noonu war ngaa xam fi mu jaar li mu daj bi ndax sowe xeetu yonente bi alayhi salaatu wasalaam mbokk yi wax nañ ni sax kenn daaw ko dimbali am na soxna soo xam ni bis day taw mu seen sëriñ bi sëñ bi jël kaamil yi mu yor di di fexe ba bañ ndox mi dal ci mu di muy défendre taw bi di kuuf kaamil yi soxna si yërëm ko woo ko mu mu ñëw mu àll ko wenn waañ boo xam ni waañ laa wax de waañ xoolal ñun ñi kuñ ci jox waañ ci kër waañ lañ ko àll ak sëñ Tuubaa dayoo ba fa mu toll mu war koo bale baleel ko boppam ndax lan ñun ñu mucc rek ndax lan du moom de ñun ñu mucc rek mu bale ko def fay téeréem soxna soosu ko dimbali woon sax coono bu réy la ci am dem na ba tubaab yi di ko woo ndax ndimbal su ndaw soosu mu dimbali woon sëñ Tuubaa kon wax ni moom rek moo demoon moom kopp moo demoon kenn dimbaliwu ko woon ndax lan bëgguñu mucc bëgguñu doon ay julit bëgguñu doon ay dëgg dëgg taalibe yoo xam ne du am dara ci ñun lu muy xemmeem moo tax mbokk yi at yam fa def metti lool ñu di ko yóbbu luñ ko booleelul ci tënk amul bokk na ci loo xalaat rek ci jëf ju bon juñ ko war a def gasum kan suul dégg ngeen ko boole ko gaynde ndax xam nga gaynde moom bu xiifee te gis ku mu war a jëfandikoo ñu tëj ko boole ko cim néeg lu ne def nañ ko ndax lan jubli ci rek mu bañ a ñëwaat mbokk yi kooku moo demoon kon nag xalaat leen kii nii lii mu am ba ñëpp di rëg-rëg yi fu ne waaye di fa jóge kenn amatul sago ci moom ndax jëru ko ndax du fay suñ boroom ndax tolloowul ak jëf ji jëfoon ci bis bii loolu mooy bis boobu nga xam ne génnoon na ko muy bisu sabt xar ci yow ma sabti saaminal azar li xidmatil muxtaari fii saxri safar mbokk yi moo tax mu ni man de duma ma jàmbat xoola sëriñ bi la mu fa nekk lépp mu ni du jàmbat du woo kenn du diis kenn du bindub leetar du ñaan intervention sunu boroom rek ndax faqultu waxoon na ko laata muy dem faqultu xasbi bi waktafaytu bi ku ne nag xam na ni yàlla doy loon yàlla doy na jullit boo ko wax moom xam na ni yàlla doy na waaye doy loo ko doy loo ko doy suñ borom wax tafaytu bi gi nga xam ne da koo doyloo foofu moom moom rek moo fa nekkoon ku dul moom nekkoo fa waaye ku ne xam na ni yàlla doy na mu ni man dey bind naa ni yàlla doy na xam naa ni yàlla doy na waaye wax tafaytu bi gi doy loo naa ko wala suraadiya xayral ilmi wa diini du ma gërëm lu dul xam-xam ak diine du ma woo kenn duma ma jàmbat ci kenn ku dul suñ boroom mu usni ala xayri munami wala astaki wala astaki lil xalqi min faqdi an xami wala astaki du ma jàmbat mukk jëmale ci ñoo xam ni ñoo gën a ñàkk xéewal du ma jumbru jël sama loxo mut man sëñ tubaa nee na ci biir géej gi mukk naan la def na intervention wala nit fekkoon na ko fa dimbali ko nee mat maddu yedd yi li xayri sil jalaali xindi min addalaali wal idlaali jël sama loxo bi tàllal ko ku dul yàlla dafa mel ni damaa réer man ba pare di réerale mbokk yi katabtu fil bahri anni la amdu yadi ila nasara habidil ma i wa bind naa ni duma jël mukk sama loxo bi di ko tàbbal di ko tàllal ñoo xam ni jaami ban ak suuf rekk lañ te mooy nasaraan yi kon nag kooku moo demoon am coono bu réy bii nga xam ni moo boo génnee yëg ni fay gi lu coono ba tool rek fay gi toll na ko mbokk yi moom yàlla rek boolewu ci kenn wéeruwul ci kenn gërëmul kenn raditu anil mawla lazi rabba fuaadi wa axnaani wa akrim bihi rabba wa akrim bihi rabba wajahtu wajhi ila al si sil ardi was samaai wal muluki te loolu yëpp jublu gi mu jublu suñ borom bàyyi ko boppam moom rek moo tax ñu sànni ko at yu bari gaboo mu daj fa lam fa daj mu ñibbisi ñu sonal ko coono bu maanaam yóbbee waat ko coono yóbbuwaat ko Mauritanie juróomi at fa gën a sori fa gën a ñàkk ndox ndax lan metti mu jóge fa ñu ni nañ ko indi Ceyeen yoon amu fa taalibe yi duñ fa mën a dem bu demee foofu dana mën a dootuñu ko tal ñu dem nit ñi gën a xëlëf xëlëf yi gën a ko taxul mu noppalu ñu ni ko léegi da ngay dem Jurbel Sëñ Tuubaa dundam ni ma la koy xoon amul fenn fenn foo xam ni moom na boppam ba keroog bi mu wuy seen suñ borom ci Tuubaa amul fenn ñu indi ko Jurbel mu ni raamu masiri ilaa Jurbel la daal la sa sin law ayyanoo sirrama fii sayri maaraamu mbokk yi Jurbel rek Sëñ Tuubaa ba fa nekkee lu mu bëgg a def day ñaan ñu jox ko autorisation lu mu bëgg a def day laaj ñu jox autorisation bu doo koo mën a def kon nag ñu xam ni amul woon liberté amul benn benn liberté ci boppam lu tax mu mën a am sañ-sañu def dara te amu ci ndigalu tubaab bi kooku lañ téye woon kooku moo daj loolu ci lislaam kooku moo daj loolu ci liggéeyal yonente bi alayhi salaatu wasalaam kooku moo fexe ba der bu ñuul tey der bu ñuul siggi der bu ñuul siggi xam ni ndeke jom ak njàmbaar ak fit ak fulla am na ci ñoom mbokk yi kooku mooy ki nga xam ni moo demoon moom rek moo demoon moom rek kenn demul moom rek moo demoon kon liñ mën a jàngate foofu ci tënk ndax dañuy tënk mu gën a gaaw mooy wax bi ma tàmbaloon ci kanam ndax nit mën naa jariñu te sonnul sa xelu mbopp yaa naan déedéet nit mënta jariñu mukk te amul coono nit mënta am li sëñ Tuubaa am te jaaroo fi mu jaar nit mënta am liñ ko defal ci dëkkam bi te liggéeyaloo yonante bi alayhi salaatu wasalaam liggéeyal la suñ borom lii mu am nit mënu koo am moo tax mu ne woon nabaxtukum maan ala kadil bada yee naa leen yéen ñëpp yewu leen laata may am jërëjëf ji ma ñëpp di wax laata may am ngërëm lu sax fan laa jaar li ma la nett liggéey ngay xoolal rek fi mu jaar doy na rek nga misaal ci néeg ba rek néeg ba ca ndakaaru ak yeneen ak yeneen doy na rek juróomi at yuñ la tàqaleeg dëkk bi nga gënoon a bëgg sa njaboot say taalibe say sa lépp nga bàyyi leen dem loolu rek doy na sëkk kon nag laata muy am lii coono bu mag ci la jaaroon moo tax imaamu Saafi nee na bi xudduril kat di tuktasabul maali ci kem rek sa daraja maanaam kem ni ngay ni ngay sonne ni ngay sonne ci mbir ak ni nga koy bëggee ci la lay ci ngay fàggoo ci lañ lay defale li nga bëgg te mooy kawe ga nee na waman talabal ula sahara la yaali ku bëgg ku bëgg nangoo am àddina da ngay nangoo liggéey ku bëgg am àllaaxira nangoo jaamu yàlla maanaam kon tey di nelaw taxul nga am martaba ya nga war a am te suñ borom kon nag loolu imoom Saafi moo ko wax nee na waman raamal ula min xayril kaddi yaa ngi bëgg li sëñ Tuubaa am yaa ngi koy bëgg te nangoo sonn noo koy amee ah, nangoo dar daj dara ci sa bopp te moom fi mu jaar ñu jaarale ko foo xam ni kenn mosu faa ci coona te nga bëgg ko moom nee na loolu yaa ngi koy sàkku mënul am nee na ada umra yaa ngi sàkk sa dund fii talabil xalaal ci sàkk lu lew loo xam ne mënta nekk loo xam ne kenn mënu koo am kon nag aljazaawu ak fay yakunu min jinsi la fay goo gis maanaam fay goo gis rek xoolal jëf ja xoolal jëf ji xoolal suñ tubaa fay gi ko suñ borom fay dangay xool jëf ji démbam ji kon nag mbokk yi ñu jàppe ci xame ci ni loolu moo tax bi mu bi mu defee loolu nag yàlla nag pare mu may ko nag lu mayul kenn coono bii mu daj fi mu jaar waaye waay ku fa jaaral ku suñ borom sax mu defal la loo lu mu defalul kenn li ko suñ borom jaral yonente bi jaaral ko moo tax suñ borom defal ko lu mu defalul kenn moo tax na xéewal yii bokk na ci lam fa amee nee na ci tukki bi moom sëñ Tuubaa ci tukki bi ci la mujj di xaritu bi yoon suñu borom tukki bii ci la mujj di xaritub suñu borom nekk koo xam ni ci tukki bi ci la mujj di liggéey katub yonante bi alayhi wasalaatu wasalaam fi safarihi saara xalilan wa xadiman asna li rasulillahi sallallahu alayhi wasallam ci tukkeem bi ci la ko amee ku sonn xoolal foog nga tattale coono yi ak may gi ñu doo ko sant lu yomba firi la xoolal coono yi ak li ko suñ borom defal ñun ñu doo ko can nee ci tukki bii mujj na suñ borom defal ko ci loo xam ni mooy liggéeykatu yonente bi alayhi salaatu wasalaam ci tukki bii ci la mujjee suñ borom jox ko ci mbootum alquranul karim ci la ko joxe leeru alquran ak barkeb alquranul karim loolu moom yaakaar naa des ko wax kenn ku xool Touba ñaata daara ñaata daara ñu ñu dem ba ni ay junni junni junni daara ñaata lim ñaata lim ñaata lim ñoo fi mokkal alxuraanu karim kon loolu mënees naa nangu ni suñ borom jox na ko mbóotum alxuraan jox na ko alxuraanu karim ndax sëñ bi bindam mépp bu ko bindee démbit boo xoolee tey gis ko boo làmbee daj ko jëru sax sori boo xoolee rek da koy daal di gis lu mu la ne suñ borom defal na ko rek boo xoolee da koy daal gis nee na ci tukkeem bii ci la ko suñ boroom it defale mu bokk ci na muy fayee waa ahlul badr ci tukkeem bii ci la ko amee tukkeem bii suñ borom defal na ko ci loolu bokk na ci nee na ci tukkeem bii ci la suñ borom musale ki ci moom ak ki nga xam ni ku mucc ci moom yombul te mooy seytaane di iblis mucc ci moom yombul de nee na ci tukkeem bii ca jeewal sax la wax aye samin na laaw xinda jeewali iblisa is naa day turóo bi yaawali ci jeewal rek fa la ma suñ borom musale woon ci iblis man naaguloo ko ci man ba mënatut a yàq ci man dara loolu moom la amee ci tukki bi tukki bi nee na am naa ci tukki bi ngërëmal suñu borom am naa ci tukki bi ngërëmal yonente bi alayhi salaatu am naa ci tukki bi ngërëmal xulafaawul araba am naa ci tukki bi ngërëmal nit yàlla yépp am naa ci tukki bi ngërëmal maanaam saxaaba yi ñoom ñëpp am naa bu ko ci tukki bii ci laa ko amee moo tax nee na radiyallah radiya anni xulafaawul arba xossu ridan muxarrabiina mu tabax mooy xulafaawul arba gërëm nañ ma mu ni déedéet ñoom rek yëmu ci mu ni li xew léegi attaque di jóge fu ne ñu ne naan sëñ tubaa ku ne di ko tegal kàddu yoo ko wut te tegal waaye waaye war ngaa fàttaliku war ngaa jéem a jàng war ngaa jéem a xool sañ tubaa fan la jaar mu ni man lam yekkoon an nii yarda waay waay bu ma kenn bu ma gërëmul bu ma kenn gërëmul fal suñ boroom radiya am nii ridan lay séerim suñu borom gërëm na ma gërëm loo xam ni du dog ba mukk ci tukki bi ci la amee ci ci loolu ci tukki bi la ko amee mu nga nga jàppe ci ni kon bokk na ci xéewali tukkee mbiit ci la ñu amee li ñuy wax maanaam saadatan fi min dunia fi dunia maanaam texe ci àddina ak àllaaxira waa fawsan lahum maanaam képp ku aju ci moom wala képp koo xam ni woowoon na la ci mbégte mi te nga wuy ci ko tukkeem bii ci nga amee li ñuy wax mucc ci sawara ndax nee na dogoon ko nag demam gii wolof nasaraan te kon billaahi ñëpp dem niiraan ku tee nga doon am nasaraan sëñ bi moom yoon wi nangu na lu ne ba mu doon nuur nuur lu am nasaraan ndax xam gum leen xam waaye ku teye nga doon am nasaraan ku teye nga ku tax nga mucc bokk ci jéng yi nga xam ne dafa nekkoon ca sawara ka tax nga mucc ci tukki bii nee na ci la amee xéewal yooyu suñu borom def ko garanté ak nga xam ne dañ koo topp mooy ñu am texe goo xam ni texe di du ci topp mukk moo tax may wax ni Sénégal nit ku ñuul amul kenn te gis nga sëriñ bi ci ñu xam ci jànkat yi nekk ci biir fu muy ñaane wallahi njabootam lay njëkk mujj ñaanal fu muy waxee l'islaam ijaal rujuhi ila xawmi saadatina wal takfina yowma jami xalqi nii daala kon mbokk yi wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu